sëñ Cheikh euh, Abdou Mbacke maa ngi lay nuyu di la ziar dala jàmm ci Sénégal. Ah, maa mhm. euh, tey ñu ngi waxtaanee ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu lamb. li ñuy njëkk waxtaanee mooy Bombardier ak euh, ki nga xam ne moom mooy ballagay Gaye bëri nañu keroog mu am coow lu bare bari ci wàllu mystique wax nañ ko ci côté kii di Balla Gaye ñu gis ne bi mu ñëwee stade ñi ko topp bari nañ loolu te mystique bi bari na lool bilaa làmb jeexee tamit. lu bari wax nañ ko ci ak li ci xew yow lan nga ci jàngat ak lan nga gis ci ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye lan moo doxul ci moom ak lu baaxul ci moom. waaw maa ngi siyaare ñépp tey rafetlu dugg bi ma dugg. Mm-hmm. ci ligne bi. Mm-hmm. tey maanaam rafetlu yu bari yi nga xam ne ñu ngi koy dégg. Mm-hmm. ci lu mel ni li xewoon démb. ndax yàlla dafa dogal nit ci moom. daanaka li nga xam ne xamu ko nu ko neex la ci waxe waaye maa ngi gis nit ñi ku nekk di jàngee di jànge li xew di ko waxee ni nga xam ne noonu nga ko yaakaar ne noonu rek la demee mm-hmm. waaye nit moom buy ànd ak ay nit da ngay fexe ba di leen encouragé ngir ñu gën a ànd ndax ànd bi Balla Gaye ak yeneen nit ci jàmm dañu doon ànd moo tax daanaka loolu dama koy rafetlu loolu moom ku xam ku nekk waroo dafa li luy ñàkkloo nit komba te loolu baatin lay doon lu doon loo xam ni lu feeñ lay doon lu lu lu nit ñi a gis moo tax ba ñëpp duñ ci am kàddu bu yàlla dogalee li am ñi nga xam ne ñoom ñoo xam niñ demee rek ñoo war a wax waaye Balla Gaye mu ngi ñàkk combat bi biñ ko envoyé ndax euh, woote naa ay nit ñoo xam ne jege nañ ko lool moo wax leen ni leen combat bi de Balla Gaye ñàkk na ko na ñaan renvoi wala ay kilifa yoo xam ne sax damay jëflante ñoom ci affaire ñaan nga xam ne léeg-léeg bu lamb amee wala dara dan may woo laaj ma lan moo ci sama xalaat wala nan laa ko gisee waaye bu fekkee loo xam ne da nga koy wax ñëpp di ko dégg waroo waxee sa xalaat kese war waxee xam-xam bu bu mat sëkk waaye li may wax mooy sëñ bi sëñ bi cheikh bi kañ nga ko waxoon ne ñàkk na làmb ji premier combat bi la wala deuxième bi bi ñu premier programmation wala deuxième bi déedéet deuxième bi la ko ñàkk làmb ji buñ ko renvoyé waatoon beneen yoon boo mbëjee mënta fexe ba am na d' waaw loolu xamaloon naa leen ko. Hmm. ndax nit ki dafa am loo xam ni dafay nekk dafay nekk loo xam ni saa yu ñëwee ci nit ki rek doo ko gis te gisi noonu ko daan gis ndax Balla Gaye nit ñi bim bim summee ko wala bi mu demee ci biir làmb ji di bari nit ñi xamee ko loolu li ko waral mooy bis bi dafa nekkoon bis bu mu war a ñàkk waaye bu ma déggee nit ñi naan dafa war a dem defaru jiwaat wala mu def nangam wala mu def nangam wala mu def nangam Balla Gaye 2 lam santiroon ci yaramam bu ñaanoon renvoi donte samedi bi ñu waxoon ñu bëri ko dimanche kon ci yaram bi kon ci bi mën nañ jàpp ne xëy na jaga dina waat ci deuxième euh, bés bi. de gisuma ci dara. Hmm. gisuma dara ci yaram. Hmm. moo tax ma xam ne maanaam bés bu mu waroon a ñàkk moo ñëw. Hmm. bu mu ko tee continuer àggale yeneen yeneen yeneen làmbam yi ndax waxoon naa ko. man teguma ko loolu te teguma ko ci dara. man yàlla dafa dogal mu maanaam euh, lu bare bari daal xam naa ko te waxoon naa ko moom. nanoo daje ma wax ko ni ko làmb joo am boo ma woowee téléphone dinaa la wax ni làmb ji dem balaa moo ñëw mhm. waaw bi mu bëreeg Tyson rek daal mhm. amul benn làmb bu dox ci bi boo xam ne xaw ma na muy demee la la tax ak mais bii wax nga ceeg Balla Gaye directement ba ni ko am wala ay nitam nga ko wax déedéet naa ceeg ñu jege ko jege ñoo xam ne xam na ma xam parce que dinañ dégg lii bu ñu ko tiggee dinañ xam ne waxoon naa leen mhm. ñaa nee nan ñaar renvoi ba bi ñuy bëgg a euh, bëre nga xam ne def na ñaari fan xam na ku ma woo ne ko jot ko jot ko nee ko na ñaar renvoi lamb ji bu bëree Bombardier dafay daal xam nga yow yónnee naa la sax ay ay ay gis ngeen gis nga ay ay ay yu xam yu leer ne waxoon naa ko hmm, hmm, hmm. voilà kon foofu leer na mais ñu gis ne tamit ci ci wàllu làmb ji ci bis bi li mu mystique dafa bëri trop dafa dem sax ba cumikaayam dafa jaxasoo ba waa këram man sax jël naa kenn ci euh, papaam Euh, te mu yor wàllu bi nee na affaire dafa jaxasoo ba mënuñu comprendre loolu loolu loo ma ciy wax. mooy li wax rek lépp day dellu si waat ci bis bisu ko war a ñàkk. Mhm. ndax nit moom bu waree ñàkk da du gis lu koy may. Mhm. da koy maam xam li nan xam-xam euh, soriwut waaye dafa nëbb loolu la li la war a may lan doo ko gis bis boobu Balla Gaye bu andi woon junniy biteel du gay bis bi la wërtoon la daal. bés bi ma ne même bu Bombardier bëriwutoon loolu deful dara Balla Gaye du ko daan mhm. ndax yéen gis ngeen gis ngeen Balla Gaye yéen doon tànte yëpp xam ngeen ni loolu daanul Bombardier waaw kon dafa gisut mhm. bis bi ci bis bi la buñ ko renvoyé woon bu nekkoon dimanche bëri bi kenn kenn mën ta wax Bombardier daan loolu moom leer na ma tey damay dégg nit ñi naan danoo dëpp combat bi wala danoo def nangam wala danoo def nangam waaye man làmb ba ma ko na ak liy làmp ji bu fekkoon ni six mois laa ko gis laataa muy agsi du ko ba ne du soppiku ba ne bëre bi jàlle d'accord su fekkee làmp wër sa am la it danaa ne la làmp du am ndax ba ndax bi ko njëkkee commencé am na ñu ma ñu ma ko waxoon bi njëkkee jàpp dat bi ba làmb ji def ñaari fan nee naa leen làmb ji du am ndax gisaguma mhm. te Balla Gaye du bëre làmb ma gis